Cheikh Mahmoudul Bachir digal Serigne Mouhamadou Moustapha Diatara jox Cheikh Mahmoudul Bachir mu war koo andi ci njabootug sunu wajur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mi fi nekk te war koo teg ci loxol ki nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Seck yëpp kon Serigne Moustapha. ñu jox la kàddu gi bàyyi ko ci sëriñ bi العميد طريق المريدية حفظه الله ورعاه وأيده ونصره moom la yebal mu ñëwal ko tey bokk ak yéen tiis wii fi nga xam ne moo fi am di kilifa bu tedd gi nga xam ne moo fi bàyyi ko di Cheikh Ahmad Tidiane Seck doonoon kenn ci moom mu xaritam di koo xam ne seen diggante réew bépp xam nañ ko umbul kenn diggante ci kii jëmm ju am solo lool ndax li ñu koy adressé lépp mooy borom alxuraan alxuraan de ku ñu dem ba adressé la ko waratu amatoo beneen adresse bu ko kawe te loolu ñëpp adressé nañ tey te it nañ ko man am na benn bis rek ma di déglu rek muy wax ci alxuraan loo xam ne damaa defe woon ni loolu amatut ku xe xereñee noonu alxuraan xamee ko noonu man defe woon naa ne ca mag ñu jëkk ñu la amoon waaye jeexoon na kon buñ ko ko xe buñ ko ko adressé jox nañ ko adresse bu am solo sëriñ bi nag dikk Euh, di leen jottali njaalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha kat bu sañoon moom ci jëmmi boppam lu mel nii bu amee waxtu wu ne mooy jógal boppam ñëwal boppam ndax ku ne xam na itteem ci digganteem ak këri diine yii loolu da koo ñor lool ba moo tax mu yebal Cheikh Mouhamadou Bachir ak délégation bu mag bi mu àndal xam ne xëy na dañ ko lim ci kanam. waaye loolu lu mu ci bëgg a wane rek mooy rëy gu gis bi rëy ci moom ak ki fi jógee ni mu rëyee ci moom moo waral mu ànd ak ñi mu àndal ñëpp jógee Touba ñëw bu sañoon tey jii day ñëwal boppam fekke bis ba fekke bañ koy denc loolu yi mooy li nga xam ne moo ko ci doon doy waaye terewul rek mu ànd ak ñi mu àndal ñoom ñëpp dikk di indi njaalum sëriñ di leen xamal nag Euh, li fi nekkoon démb ak barki démb rek mooy wéy day gën a yees day gën a dox day gën a jëm kanam rawatina nag ñoom ñi nga xam ne itam dox nañ ko wax nañ ko ndax sëñ Bassirou gi nii waaye kat lépp lu xew Touba kenn du fa jiitu waa Canam lépp lu wax xew danañ leen fa gis te ñun ñëpp ko xamee nañ leen ci taxawaay loolu moo tax fii buñ fi dikkee day mel ni ñun suñu kër lañ dikk sëñ bi dafa mel ni tey jii lii ngeen di def tey jii day mel ni moom mook ko benn ngeen ci jaageen dafa di leen ko jaay jàll waaye moom mii rek man jàpp nañ ne ñun moom warees na ko mën a jàll ndax digganteem ak yéen ak digganteem ak moom kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana yàlla doole ko leer ca fa mu jëm te am nañ ci moom yaakaar ndax ku dem al ku jógee fii ci suuf ñu seereel la sa diggante ak fa nga jëm ku ne war na fa rafet jot kon moom ku ne rafet na ci moom jot ci léppam ci zaahir ci fi mu bi mu nekkee ci àdduna ak ba mu demee fële ci àllaa kon nee na Cheikh Mahmoud Mountakha mi ngi leen di nuyu bu baax di leen li njaalo di leen xamal ne itam li nga xam ne mooy ay tànkam di ay taxawaayam mooy këri diine yëpp nekk benn fu ñu toll rek lii bëgg-bëggam lépp mooy bu sañoon këri diine yi nekk ci biir Sénégal yi yëpp ñu xam ne du ay këri diine genn këru diine la ñoom ñëpp ñoo ko bokk ku ne fa nga nekk ab néeg la rek boo xam ne kër moom kenn ku ne am nga néeg boo ca nekk waaye ëtt bi moom ñëpp ko bokk te mooy islaam kon loolu moom Cheikh Mamadou Mountakha loolu la jàpp loolu la gëm loolu lay doxal Cheikh Mamadou Bachir mii nga xam ne it mooy ndawam di ay tànkam di làmmiñam tey ñu ñëw fii eh, yàlla na yeex yàlla na gëj ba doxante yi doon leneen lu dul lii ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu xam ne rek sëriñ bi moom sant na bu baax ñi fi nekk ñëpp sëriñ baa ngi leen di jàll di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wallahi taala wa barakaatu. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ñaan nuyoo bu. di ñaan nuyoo bu. li mu lamb ci yiw. li mu lamb ci yiw. làmb ko ci barke. làmb ko ci barke. làmb ko ngëneel. làmb ko ci ngëneel. yal na ko yàlla laaf jotaay bi. yal na yàlla. laaf ko jotaay bi. muy mucc ci ñoom. muy mucc ci ñoom. di barke ci ñoom. di barke ci ñoom. di ngëneel ci ñoom. waaye di xéewal gu dootu dog. waaye di xéewal gu dootu dog. ci ñoom. ci ñoom. ak fu jullit nekk. ak fu ab jullit nekk. di leen dalal jàmm. di leen dalal jàmm. fii ci seen kër maam. fii ci seen kër maam. fii ci seen kër baay. fii ci seen kër baay. fii ci seen kër xarit. fii ci seen kër soppe. fii ci seen kër soppe. fii ci seen kër yu wéttal. fii ci seen kër wéttal. nga xam ni lu fi seen yitte. nga xam ne lu fi seen yitte. du lenn lu dul toolub lislaam du lenn lu dul toolub lislaam bu ngeen fi am bu ngeen fi am ak njaboot di leen ko bayal ak njaboot di leen ko bayal ñun ñuy seen jëwrin ñun ñuy seen jëwrin nu nit la am tuuba nu nit la am tuuba du lenn du lenn lu dul waar woo xam ni lu dul waar woo xam ni ci toolu islaam boobu ci toolu islaam boobu dañ faa am njaboot dañ faa am njaboot ñu koy bay ñu koy bay ngeen di seeni i jëwrin muy benn tool. muy benn tool. di génn kër. di génn kër. am benn bunt rek. am benn buntu rek. muy buntu jàmm. muy buntu. jàmm. jàmm. ñu koy duggandoo. di ko génnandoo. di ko génnandoo. seen tànk te yii nag. seen tànk tey yii nag. jëkkul ci cana ba. jëkkul ci cana ba. suñuy tànk ñu nit. suñuy tànk ñu nit. Euh, gëjul Touba. gëjul Touba. te jëkku fa ci suñuy tànk. te jëkku fa ci suñuy tànk. fii li sëñ Moustapha Diatara wax. fii wax. lii firndeb loolu rek. loolu rek. mooy kër sëñ Touba ngi ci biir Thiénaba Seck. mooy kër sëriñ Touba mi ngi ci biir Thiénaba Seck. te li ko andi. te li ko indi mooy sëñ Abdoul Ahad Mbacké. mooy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké. seet si sëriñ Ibrahima Seck. di magam. di xaritam. di xaritam. di soppeem. di soppeem. di wëllëreem. di wëllëreem. muy ngan gu rëy. muy ngan gu rëy. bi mu koy gane si. nee na bi mu koy gane sëñ Ibrahima Seck. dafa defar kër ba mu noppi. noppul mu ni caabi yi bunt bi mu ni caabi yi bunt bi sëñ Abdoulaye da koy njëkk a ubbi sëñ Abdoul Ahad Mbacke moo koy njëkk a ubbi néeg bi ci nekk néeg bi ci nekk moo koy njëkk a ubbi moo koy njëkk a ubbi lal bi ci nekk lal bi ci nekk moo ciy njëkk a toog moo ciy njëkk a toog sijaada bi ci nekk sijaada bi ci nekk moo ciy njëkk a julli moo ciy njëkk a julli ba matuwaayu kër gi daj ba matuwaayu kër gi daj mbooloo mi fi daje keroog mbooloo mi fi daje keroog jiw njabootu sëñ Abdou di njabootu sëñ Abdou ak njabootu sëñ Cenaba Ibrahima Ibrahima Seck neexuta lim ci takk neexuta lim ci ab takk waaye nam ko organisé moom waaye nam ko organisé woon moom moom sëñ Ibrahima dani moom sëñ Ibrahima dani ñi fi ñëw ñi fi ñëw gunge si sëñ Abdou Lahad si sëñ Abdou Lahad ñuy njabootam wala ñuy njabootam di ko fi xaar di ko fi xaar seeni loxo seeni loxo nay loxol sëñ Abdou Lahad ñi ma fi ñëwal. ñi ma fi ñëwal. ngir tertul ma ko. ñi ma fi tertul ma ko. wala ñi ma dëkkal. di ko fi nekk. di ko fi nekk. seeni loxo ñoom ñëpp. seeni loxo ñoom ñëpp. nay sama loxo. nay sama loxo. su dikkee jàmm. bu dikkee ak jàmm. na ma jox loxo. na ma jox loxo. ma jox ko ko. seeni loxo. seeni loxo. di loxoom. di loxoom. suñuy loxo. loxo. di sama loxo. di sama loxo. keroog xëccoo amul. keroog xëccoo amul. ba mu duggee ci kër ga ba toog sëriñ bi nee na keroog bi mu duggee ci kër gi ba toog sëriñ Ibrahima Seck ni ko sëriñ Ibrahima Seck ni ko fii ay Touba Seck fii mooy Touba Seck ba nëga ni ba nëga ni kër googu loolu la saxoo kër googu loolu la saxoo kon loolu kon loolu seenu kóllëre seenu kóllëre maam ya maam ya ak bàyyi ak bàyyi ya moo ko safoon te loolu li ko waraloon te loolu li ko waraloon sëñ Ibrahima Seck sëñ Ibrahima ba mu koy jaale ji sëñ Fall ba mu koy nee na biñ ne sëñ sëriñ Ibrahima Seck sëriñ a Seck mu ngi ci bunt bi mu ngi ci bunt bi daa yónnee ndaw daa yónnee ndaw ni bu mu wàcc ni bu mu wàcc nañ ma jiitu ci moom nañ ma jiitu ci moom bu mu teg tànkam ci suuf bu mu teg tànkam ci suuf te ñëwuma te ñëwuma ba ko ni ko bul teg sa tànk ci suuf bul teg te jàppaloo ma bis bis bi ma lay fay si ma lay fay si loolu indi ngan googu indi ngan googu kon seen tànk yi kon seen tànk yi ci canaba ci canaba ciw yiw ciw yiw jëkkul tey jëkkul tey waaye waaye naka noonu itam naka noonu itam ci canaba ci canaba ca Touba ca Touba lépp rafet lépp rafet na seenu melokaan it seenu melokaan it yàlla nuróole lépp yàlla nuróole lépp ngir ne lu bokk rek ngir ne te bokkule wuñ dara te bokkule dara lu dul islaam lu dul islaam ngeen koy dundal nag ngeen koy ci anam boo xam ni ci boo xam ne waar wu rëy la waar wu rëy la Serigne Touba. Serigne Touba. di sunu maam ñun ñëpp. di sunu maam ñun ñëpp. mu jaraloon ko lu ne. mu jaraloon ko lu ne. waaye bi mu fi jógee. waaye nag bi mu fi jógee. ñi mu fi ba. ñi mu fi bàyyi. yaafu sunu. yaafu sunu. ndax su doon benn ca moom. ndax su doon benn ca moom. barki démb. bar barki démb. di ñaar. di ñaar ci ay njabootam. ci ay njabootam. yi mu meññ ci deret. yi mu meññ. ci deret. ci deret. yéen ñi di sët. yéen ñi di ay sët. bi ngeen ko desee. bi ngeen ko desee. waxuma ñett. waxuma ñett. waaye li ngeen ko def. waaye li ngeen ko def. mënee su koo lim. mënee su koo lim. te mu daj àdduna yëpp te mu daj àdduna yëpp kon ngeen gàcce ngalaam kon yéen gàcce ngalaama yéen yal na leen yoon wi gën a jig yal na leen yoon wi gën a jig ngeen gën a jig ngeen gën a jig yoon wi ñii ngeen fi fekkit ñii rek lañ doon loolu dong la ñu doon di ci nab nabi di ci nab nabi yàlla mi tax nu koy def yàlla mi tax nu koy def ak yonent bi sallallahu ak ak maam yi ñu doon ak maam yi ñu doon ak bàyyi ak bàyyi yàlla nañu ci jàppale yàlla nañu ci jàppale sëñ Muntaxa nag sëñ Muntaxa nag réew mi yëpp ko sopp réew mi yëpp ñoo ko sopp ngir teral ci teral gu ko yàlla teral ci jëmmam ci jëmmam ngir melokaanam ngir melokaanam ci teral gu ko yàlla teral ci teral gu ko yàlla teral ci xam-xam ci xam-xam ngir melokaanam ngir melokaanam ci teral gu ko yàlla teral ci teral gu ko yàlla teral ci ubbikoom ci ak ubbikoom ak jàmmam ak jàmmam te mu feeñ ci xar kanamam te mu feeñ sax ci xar ci xar ba kenn ci réew mi ci réew jullit mënoo wéet mënoo wér wala nga wéttaliku wala nga wéttaliku jàpp ni nit jàpp ni nit jàppal na lenn sëñ Muntaxa jàppal na lenn sëñ Muntaxa lu dul jàmm lu dul jàmm wala mu am lu mu ko gàntal wala mu am lu mu ko gàntal du ci nawlay kilifa yi diine du ci nawlay kilifa diine yi mu bokkal sées yi mu bokkal sées bi du ci seen i njaboot du ci seen i njaboot itam sëñ Cheikh Ahmad Tidiane it sëñ Cheikh Ahmad Tidiane loolu ngeen seede ci moom loolu ngeen seede ci moom kilifa la woon goo kilifa la woon goo xam ne ku wàcce boppam ku wàcce boppam la du fatu mukk du fatu mukk du tëju mukk kenn kenn te li ko war ci diggam ak borom te dara manqué wu ci dara manqué wu ci li mujj ci làmmeñam mu li mujj ci làmmeñam mooy li sëñ Moustapha Dia di wax mooy li sëñ Moustapha jatara doon wax jatara doon wax mooy takki alxuraan mooy takki alxuraan yi muy tënk yi muy tënk naan saar sàngam naan saar sàngam boo soxlaa baat sàngam boo soxlaa baat sàngam ci saar sàngam ci saar sàngam nga koy fekk nga koy fekk muy ñaar muy ñaar nga fekkaat ci saar sàngam nga fekkaat ci saar sàngam muy ñaar muy ñaar nga fekkaat ko ci saar sàngam nga fekkaat ko ci saar sàngam muy ñett muy ñett soo ko boolee soo ko boolee nangam lañ koy firee nangam lañ koy firee ngir nga mën koo tënk ngir nga mën koo tënk ba boo ko soxlaa ba boo ko soxlaa sa xel mën a dem ci fexeel mën a dem ci saar sàngam saar sàngam ak saar sàngam ak saar sàngam ak saar sàngam ak saar sàngam boo soxlaa baat nangam boo soxlaa baat nangam ci yooyu la nekk ci yooyu la nekk looloo mujj ci làmmiñam nee na yooyu moo mujj ci làmmiñam waxtu 10 heures waxtu 10 heures jëm 11 heures jëm 11 heures mu ci doon waxtaan mu ci doon waxtaan ak Mouhamed Aline Gueye ak Mouhamad Aline Gueye. ñëpp dem tëri. ñëpp mu wuy ji boromam. trois mu dem wuy ji boromam. kon fenn fekkewul. nee na kon kenn fekkewul. waxtu wuñ ni. waxtu wuñ ni. ci la defee sukuraat. ci la defee sukuraat. donte mënut a ñàkk. donte mënul ñàkk. te lu mën a ne la. te lu mën a ne la. amoon nañ nitu yàlla yàlla boo xam ne. Serigne Ndiame Gueye. ca kër Cheikh Madické. ca kër Cheikh Madické. ca ca rue 3. angle 6. angle 6. dafa woolu Serigne Souleymane Seck. nee na dafa woolu Serigne Souleymane Seck. def naa ko ba pare. def naa ko ba pare. bi sëñ Suley taalee oto. bi sëñ Suley taalee oto. bi muy agsi Thiénaba. bi ak oto bi koy indi. ak oto bi koy indi. di doomam. tëral coussin kanam bi. tëral kanam bi. tëral ko ci. tëral ngir nax waa kër gi. ngir nax waa kër gi. ba génne ko. ba génne ko. fii la fekk sëñ Suley. kon loolu lu mën a ne la kon loolu lu mën a ndax booy seede ndax booy seede ngaa wane firnde mën ci nit mën a gëme bu ci nit mën a gëme ndax lu raw loolu ndax lu raw loolu sax suñu borom mën na ko suñu borom mën na ko kon ngeen seede ni kon am na nu mbégte am na nu mbégte diggante mag ñi diggante mag ñi ak waajur yi fi jógee ak waajur yi fi jógee doon dund li ñu doon dund nga xam ne lu fa musa xew nga xam ne lu fa musa xew waxuma njaboot waxuma njaboot waaye jëmm ma ko fa doy waaye jëmm ma ko fa doy bu amee ngant bu amee ngant yebal njaboot yebal njaboot gi sës ci moom comme ni sëñ Muntaxa comme def tey def tey jii Sëriñ Muntaxa Sëriñ Muntaxa kii fi bàyyi Cheikh Tidiane wóotu kii fi bàyyi Cheikh bi mu fi jógee nee na bi mu fi jógee di bàyyi Ousseynou Xaar Xaar moo ñëw jaalesil ko boppam moo ñëw jaalesil ko boppam jóge fi jóge fi sëñ Baara sëriñ Baara mu sëriñ Fàllu mu sëriñ Fàllu doon xalifa sëñ Touba doon xalifa sëriñ Touba ñëw jaalesi ñëw jaalesi ko moo tax ñu fa jógee itam nee na moo tax ñu fa jógee itam te sëñ Baara moomu sëñ Baara moomu ba ci sëñ Cheikh Matiley ba ci sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar kii sëñ Sidi Mokhtar. sëñ Sidi Mokhtar. Baye Cheikh Tidiane. moo dem. ak jëmmi boppam. mu yabal nag. yéen ñii mu na ngeen seede ni. njaboot gi. njaboot gi waralewuñ leen. waralewuñ leen. ak jëmmi sëñ Muntaxa. ak jëmmi nañ ni sax. nee na mën nañ sax. ci yéen. ci yéen lañ ëppee. lañ ëppee. ak ubbiku. ak wax ak yéen. wax ak yéen. ngir nin tolloo jamono. ngir nin tolloo jamono. kon Cheikh Bass. kon Cheikh Bass. ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal yàlla. lii nga xam ni. lii nga xam ni. say wayjur. say wayjur waajur say mag say mag say doomi baay say doomi baay say rak say rak say soppe say soppe ak seex yi ak seex yi ak taalibe yi ak taalibe yi am nañ fierté am nañ fierté nga yoral ko kër sëñ Touba nga na yàgg ci sa loxo yàlla na yàgg ci ko wér gunge yàlla na ko mucc gunge yàlla na ko ndam gunge ko ndam gunge sa tay june sa sa ëllëg sa na ko gàcce yàlla na ko ci sa yorinu kër maam ci sa jotaay bi jotaay bi nee moo xat rek moo xat mën na noo weesu foofu ne mën na noo weesu foofu Serigne Mouhamed Seck mii Serigne Mouhamed Seck mu mag ci njaboot gi mu mag ci njaboot gi di góor di góor ak i rakkam nee na ak i rakkam mel ni sëñ góor a a ak Serigne Makhtar ak Serigne Makhtar ak Serigne Talla ak Baye ak ñi ko bokkal ak ñi ñu ko bokkal ñëpp ñoom itam nee na ñoom ci seen kàddu ci seen lii waaye tukkee waaye tukkee ci Baye Abdourahim ci Baye Abdourahim bi fii Serigne mooy sëriñ Thiénaba ñu leen di yóbbante yi ñu leen di yóbbante yi ay kaddu ci sëñ Muntaxa ci sëñ Muntaxa ni ko ni ko njaboot gi fa xam ne sëñ Cheikh Ahmad Tidiane bàyyi na leen njaboot la fi ba Cheikh Ahmad Tidiane bàyyi li leen meññ li leen meññ mosunoo yëngal dara mosunoo yëngal dara ci Thiénaba ci Thiénaba ñun ñun fi bàyyi itam nee na ñun ñun fi ñu teg suñu ñu fas yéenee teg suñu tànk dara xewu fi dara xewu fi lu dul jàmm lu dul jàmm te moom ngeen ni ñaanal te moom ngeen ni ñaanal waaye nee ko waaye nee ko du dégg dara du dégg dara yëngu yëngu lu dul noona tukkee ci ñoom ci ñoom ñii canaba benn bunt rek la am moom la musa am moom am te maam Ahmadou Ndaas ba tey ba nag danoo fa yéenee bokk nee na ci njaboot gi nga xam ni dañ koy nangu dañ nangul ko yàlla ci ab dogalam tey jii nag nee na tey la fi yàlla teg la fi yàlla muy seexu canaba muy moom jox nañ ko suñ kurus ci saahir jox ko suñuy xol ci baatin ngir jëmmi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ eh, Ahmad Saloum jëm di Nasir di Nasru Diin jërëjëf eh, sëñ Mouhamad Basir xam na li nga doon ci canaba waxuma sëñ canaba mu fi ne waaye kuñ jaboote rek xam na la xam gu wér. xam na la xam gu wér. ngir ni kër gi. ngir ni kër gi. sa kër la. sa kër la guddi. guddi bëccëg ak bëccëg doo fi jóg. doo fi jóg waaye njaboot gi. waaye njaboot gi guddeeg bëccëg. guddeeg bëccëg sa kër la di nekk. sa kër la di nekk di fa def lu ne. di fa def lu ne ngeen di solante yére. ngeen di solante yére. di solante daal di solante daal. di wecc konte. di wecc konte. ay ay ay ngëneel. ay ngëneel ak i teraanga. ak i teraanga te loolu waxuñu ko rek. te loolu waxuñu ko rek ngir jotaay bi. ngir jotaay bi sëñ Xaadim Silla. sëñ Xaadim Silla. jërëjëf. jërëjëf doom nga woon ci Baay Cheikh. doom nga woon ci Baay Cheikh. xarit nga woon. xarit nga woon. wëllëri nga woon. wuñ yore nga woon wéttal nga woon wéttal nga mën koo seede ngeen mu doon dox lu bari jàpp ni doomam nga jàpp ni doomam nga doon ko jaar ci yow sëñ Moustapha Diatara sëñ Moustapha Diatara jërëjëf jërëjëf sëñ euh, Abdou sëriñ Abdou ñu ngi lay nuyu yewit ñu ngi lay nuyu yewit la ziyaara bu baax ziyaara xam naa bu sañoon Serigne Mbuub nee dañoo ne ci sama ginnaaw dañoo ne ci mook Serigne Talla Sylla waaye ñoom moom bu ma tuddee seen tur rek. bu ma tuddee seen tur rek. njabootu Baye Cheikh. njabootu Baye ñoo may fàttali sax seen tur. lu ko waral. lu ko waral. njabootu Baye Cheikh lañu. njabootu nañ ne gu deret. mën nañ ne ak gu ak gu leer. ak gu xol ak sëriñ mbuub du jóg ci Baye Cheikh du jóg benn yoon benn yoon Baye Cheikh itam Baye Cheikh itam lu muy doxlu rek lu muy doxlu rek ci wàllu jamono ci wàllu jamono bu ci sëriñ jiituwul ci sëriñ jiituwul du ca mujj du ca mujj sëñ Talla la nag sëñ Talla Sylla moom day jógee kees moom day jógee kees waxtu wuy dem Touba waxtu wuy dem Touba màggal màggal sëñ bi da ko wutal kër spécial ci moom lay fanaan ci moom lay fanaan xëy xëy tàggutoog moom tàggutoog soog a dem soog a sëñ bee koy teertul boppam sëriñ bi moo koy teertul boppam dalal ko ci kër kër defar ay teraanga jox ko ay teraanga jox ko waxtaan ak moom ba mu guddi mu soog a dellu këram mu soog su xëyee tàggatoo ak moom ñaanal ko ñaanal soog a dem soog moo tax démb moo bi mu yëgee ni ñàkk na waajur bi mu yëgee ni mu daan demee Touba sëriñ bi di ko di ko dalal sëriñ bi di ko dalal noonu lay doxewaat ñëw jaale si ko ñëw jaale si ñu leen di delloo njaal seen tànk yi seen tànk yi yàlla na lépp yiw yàlla nay ngëneel yàlla nay barke yàlla nay barke yàggal ko lool te mu ànd ak jàmm ak wér-gu-yaram ak xiwal yu bari lool comme na mu ko defale woon mag ñi kon ñu jox sëriñ bi ci boppam mu jottali boppam kàddu yi nga xam ne moo jóge ci sëriñ bi yu teew yu tedd yi fi teew yépp nee na mu ngi yëkkati ay kàddoom indi gënalu sëriñ Tuubaa cheikh Mouhamadul Mountakha mu cheikh Mouhamadul Bachir ñaan mu yàgg ci lool te ànd ne mu yónni ko yónni ko kaddu yu siyaare ak kaddu yu njaale ci lii ñu bokk muy kaddu yu tedd yu bàyyi ko ci moom jëw ci yow Cheikh Abdourahim yow mi nga xam ne tey yow la yàlla teg tey ci bopp njabootu maam sëriñ Thiénaba nee na muy ñaan jataay bi yàgg lool te ànd ak jàmm ne sëriñ bi mu ngi lay nuyu di la ak yow ak sa njaboot gi yépp te xam ne li doon yéeneem mooy mu ñëwal boppam waaye fii jamono toll nga xam ne ndaje yépp dañ koo tere te kon kenn doyu ko ci jëmi boppam rek sax moo ko ci doyoon mooy moo war a amal yéene ñëwal boppam ndax xam mu xam diggante maam kër sëriñ Thiénaba ak Touba kër Serigne Touba li ñu seq démb ak bërki démb te lépp di rafet naka jekk moom itam mu seereel njaboot gi nga xam ne bokk na ci kër gi yitte ji nga xam ne am nañ ko ci moom mooy waxtu wu nekk ñu di ko nemmeeku di ko siyaare si lépp loo xam ne lu mu xewle rek bokk nañ ko ak moom moo xam bu ko mënoon mooy ñëwal boppam waaye insha allah fas na ko yéene mottali waxtu wu ko waxtu wi mayee rek dana jóg ñëwal boppam moo tax mu yebal ko mu ànd ak délégation bu mag bii ma tudd léegi boo xam ne mënoon naa gën a yaatu sax waaye sàmmonte ak li jamono laaj rek tax mu doxale ko nii. ndax ku xam na ne fii jamono toll. ndax kenn ku ne xam ne fii jamono toll. laajut ay daje. laajut ay daje. ndax euh, lépp luy sàmm ndax lépp luy sàmm kaaraange ak wér yaram yaramu nit ñi rek. dafa war ci kilifa yi. dafa war ci kilifa yi. ñu di ko sàmm. ñu di ko sàmm. di ko ànd ak ñi nga xam ne yàlla dénk loolu. ko ànd ak ñi nga xam ne ci wàllu adduna ñoom la yàlla dénk loolu muy waa kër ak wàllu nguur gi nga xam ne nag ñoo nekk seen kanam. bi muy ñëw nag. bi muy ñëw nag. ne mi ngi ànd ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba Serigne Cheikh Gaynde ma ak ñi nga xam ne ñoom laa lim lépp léegi ci ay bokk. comme nag waxtu wi dafa guddi. ci commission yi di bëgg a dugg. moo tax li mu amoon yéene wax ko lépp sax dañ koy leb rek ba beneen yoon ba ñu dellu siwaat incha allah jërëjëf Cheikh Abdou ne maa ngi nuyu bokki jullit yëpp maa ngi nuyu bokki taalibe yëpp nu ngi nuyu sëriñ Basiru jëwriñ bu xaadim rasul ñoo ngi lay nuyu ci ndigalu Serigne Canaba Seck Serigne Abdourahim Seck nee jërëjëf ndokk li tamit waaye ñu ngi lay dalal ñëw nga ci sa kër ci sa kër gu la lew doom bokkoo ko kenn bàyyi Serigne Assane ne sama kër maam Xaadim Rasul seen teraanga yàgg na ci kër gi te bari. yàgg na ci kër gi te bari. soo demee fii ci kër sëñ Ibrahima Seck. soo demee fii ci kër sëñ Ibrahima Seck. li nga fa fekk da nga fekk roq bu ñuy wax tuubaa Seck. diggante sëriñ Ibrahima Seck. diggante Seydina Ibrahima Seck. ak sama baay Cheikh Abdoul Ahad. Ahmad Diop Dior ko dëkkee. Ahmad Diop doomam moo dëkkee place booba. Touba Seck. ci biir kër gi. nee na ponk la ci biir kër sëñ Ibrahima Seck. sama baay Sidi Mokhtar. sama baay at mi mu defee benn caravane. ci réew mi. bëgg a déggale doomi soxna yi ci réew mi. bëgg ñu bokk benn baat. bëgg ñu di yëkkateendoo. di bokk di yëkkateendoo. bokk di jaar na ca man. jaar na ca man. ca Canaba Gusaas. ca boo ko nee Serigne Canaba nuyu na la. boo Canaba nuyu na la. sa xarit sa xarit. sarak mu ngi lay nuyu. rakkam laa te déggoo nañu. rakkam laa te déggoo nañu. mu ni ma déggoo googu. mu ni ma déggoo googu. su ma dikkoon fekkuma ko fi. su ma dikkoon fekkuma ko fi. su may dem di ko nettali sëñ su may dem di ko nettali sëñ Sidi kooku ngi jàngale. nee kooku daal mu ngi jàngale. toppante. toppante. topp sa topp sa kilifa. te déglu ay ndigalam. loolee mu defoon ci nun la mu defoon ci nun jógu fi nee jógu fi nee jógu fi de kër saamaam xaadim rasul kër saamaam xaadim rasul amul genn këru diine gu ne ci réew mi amul genn këru diine gu ne ci réew mi te seen teraanga àggul ci yow man maa ngi toujours maa ngi wax nee toujours maa ngi wax ak xalifatul murid daa am doom ñu wax Basiiru Mbàkke Mbul. koy wax Basiiru Mbàkke Mbul. te mu ne ci Mbul gee. tem ne mooy sama xarit ba ni nekk benn. sama xarit ba nekk benn. lu ma soxla rek. lu ma soxla. moom laa koy wax. laa koy wax. wax ko mooy wax ak sëriñ bi. nun nee nun. mosunoo jóg. mosunoo jóg. ci fab Touba. ci teg ko sunu bët. teg ci sunu bët. fab sunu nopp. fab eh, eh, ko. jox jox xalifa xaadimu rasul. jox di déglu ndigal di nag ndigal. bu ma sañoon. ne bu ma sañoon. yow. yow. yow Cheikh Bass Abdou Khadir. nga jël sa numéro. yow nga jël sa numéro. nga jox sëriñ Abdourahim. sëriñ Abdourahim. jox la. bépp ndigal boo xam ne jóg na. ci xalifa bi moom daal na ko teel a yëg ne lool daal bu ma sëyoon nee na di ngeen ko maye ndax daal kër a ngi goo xam ni teraangay kër sëñ Touba yàgg na fii ne temps bee xat rek mënuma ko répété lépp mënuma répété lépp waaye sang bi waaye sang bi sunu sëriñ bii sunu sëriñ bii sëñ def ci solo ne na nga ci def sa lor. sunu yaakaar daa bari ci moom. sunu yaakaar bari ci moom. dañ koo yaakaar lool. dañ koo yaakaar lool. ci wàllu jikko ju rafet. ci wàllu jikko ju rafet. ci wàllu yar. ci wàllu yar. wàllu nangoo liggéey. wàllu nag nangoo liggéey. yomba yilif. waaye ku yomba yilif a ngi nii. waaye ku yomb wàññi yomba wàññi a ngi nii. kii. ne kii. bàyyi ko xel. bàyyi ko xel. daa bëgg bu sa ndigal jógatee. daa bëgg jógatee. jëkk na wax ak moom ne jëkk la wax ak moom. bu ndigal jógatee na sa xel dem ci sëñ Abdourahim. loo ko wax. ko wax. dana ko jéem. dana ko su ko mënul. dana ko jéem. dana ko jéem. su ko mënee. dana ko def. ne lu ngi yóbbante nuyoo ca xalifa ba. mébatam yëpp. mébatam yëpp. ci kër sëñ Touba. ci kër yëg nañu ko am na jikko joo xam ne. am na jikko joo xam ne. xalifa yëpp xalifa yëpp. dañ ko war a roy ci moom dañ ko a roy ci moom. muy lépp lu la dikkal ci teraanga. lépp lu la dikkal ci teraanga. nga delloo ko ci sëñ nga delloo ko ci sëñ Touba. nee loolu xalifa yëpp ko war a roy. waaw ñun yëg nañu loolu. ñun de yëg nañu loolu. kii muy wax mooy sëñ Assane Seck bu Canaba bu Saas. kii muy waxal ni la kii la cooti gee la nekkoon bàyyi fi lépp dem di bay yor daara ba xilaafa gi fekk mu ñëw fii pour confirmer li muy wax nee na kii ci àll la jóge ci àll la jóge ci manding ci manding di wétli ko ay njaay àll doon ko ay njaay àll jubal ci sees bii jubal ci sees bii xamul benn buur xamul benn buur. xamul benn mu xaddam xamul benn mu xaddam. xamul benn ministre xamul benn ministre. xamul benn xamul benn député. xanaa bu ko xamee. xanaa su ko xamee. bi mu toogee pouvoir bi. bi mu toogee ci pouvoir bi. waaye musul sol dàllam. waaye musul sol dàllam. jëm fenn jëm jaamu yàlla jaamu yàlla bay dunde. yàlla dogal na it. yàlla dogal na. ndeyam ndeyam. sunu sëriñ sunu sëriñ ndeyam mu nga jóge Wuro waaye ndeyam mu nga jóge Wuro Mahdi yu. moo ko fi indi waaye jikkoy góor gu mag waaye jikkoy maam seen canaba góor gu mag. jikkoy sidna limaamul mahdi jikkoy maam imaamul mahdiyu. jikkoy tedd ngay mag ñi. jikkoy tedd ngay mag ñi. lépp lépp yemb na ci loolu yemb na ci sëñ Abdourahim Seck. noo ngi nuyu sëriñ bi di la ndokkeel waaye nu ngi lay ndokkeel. ñëpp la wóolu ñëpp la wóolu. ñëpp la naw ñëpp la naw. sa benn nawle sa benn nawle. àddina ci àddina. bu la xeeb amul. yow yaa baax. yàlla na nga gudd fan. yàlla na nga gudd fan. yaa am fulla. yaa am dignité. yaa am dignité. yaa xam li nga yor. yaa xam li nga yor. jërëjëf Mbacke jërëjëf Cheikh Basirou. yaa mat yónni. yow yaa mat yónni. kilifa. yow yaa mat kilifa. waaye yaa mat ndaw. waaye yaa mat ndaw. nun jàng nanu la. nun daal jàng nanu la. ba mokkal la. ba mokkal la. tari la képp tari la donc moo ci des. jërëjëf Mbacke.